asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li sama teewaay fii de mooy ku néew doole rek te yaakaar sëñ Tuubaa ñu war ko dimbale ndax ku bàyyi ndeyam bàyyi bàyyam ñëw ci dëkku sëñ Tuubaa bi dañ ko war a jàppale tam na ci dëgg nag ñu bañ ko waxañ dëgg ndax sëñ Saliou woon na toon fii fay xaysam may ko représentant ba nekkoon Dakar di Ibrahima Cissé boole kook son yi bu Cissé mu wan ko pàkk ba Ibrahima Cissé faatoo doom ju ñuy wax Mahfous jënd ko sëñ Modou Mahfous moo ko miraas jaay ko ko 3 millions 500 bi ko jaayee 3 millions 500 mu daane li fi nekkoon di ko tabax ba àgg ba mu raase ne xam na ne Touba benn titre foncier la sëñ Touba moo koy def police ak gendarmerie seen yoon newul ci ay sapeur lañ ñu war doon di àtte waaye nag euh, ñu ñëw ci yëg ci tabax di wàcc nag moom man maa ngi koy doog a gis ne pël këlër moo leen ko digal ku ñuy wax man Ali Siré Njaay kër goo xam ne atte wuñ ko yoroo wenn kayit ñëw di ko daaneem ak ak ak jaay doole la léegi laa doon woo Moustahine ngir sëñ sëñ Muntaxa dépp ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp jëf yi damaa bëgg mu leer ñëpp ni jëf ju na la ju tegewul ci yoon bañu ay nag moo tax waaye mën naa fi andi a mbooloo moo xam ne sàndarma bi duñu leen mën a tus duma ko def ndax sëñ Abdou Lahad leen fi andi woon ngir ngir ñu ñu ñu xeex lu bon li waaw ñàkk orma yi sëñ Tuubaa ngi koy ñàkkee fi mu toll ndax ñoom bi leen fi andi pour lool rek a taxoon terem tux terem naan ak yu niroog ñoom ba pëlëkale toogee njëriñ nag di joxe ndigal loo xam ne amu ci droit amu ci sañ-sañ te moom ci boppam moo wax ni ñoom ñoo wax ni Touba amuñu compétence àtte ko wax avocat bi tam ni ko dañ leen di waay weeloo di renvoyer bañ ko sonn bàyyi kon nag wërta mën a joxe ndigal di di di di tegg di toj gi. tey ko gis damaa ñekk ñekk gis ne daam ko ci tax foog na day sama rak du ko weer du ma yàq dara waaye daal kii moom dama bëgg ñu xam ne moom moom moom ci lu gën sëñ Saliou wa mayoon bàyyam bàyyam faatu mu jënd mu tabax ba mu raase am na seet raas bu ne fii nag bu dëng leen ceer njaay tudd moo lëkkaloog ñenn ñi def yenn yi kooku nag dañ ko fee war a jëlee ku mel ni moom dañ ko fee war a jële sàndarma yi nga xam itam dañ leen digal rek ñuy def xaj na tooñ waaye ka leen digal def itam war nañu fee jëlee ka leen ka yónnee di digal ñuy def war nañu fee jëlee waaw ñoom seen droit lañ def am nañ ci ndigal ndax bu la seen kilifa digal def lam la digal waaye nag toj kërug jàmbur wii see ñëwut dara ñëwut ku ko defoon ku lu ëmtëni ci kaso bi ngay faan dama dama damaa ñëw yem nii rek sëñ Tall mi fi newoon li ko taxawu borom daane Italie lii may wax tam Thierno Ndiaye ma kii eh, eh, soñ bu dem na police dem na gendarmerie leeral ko ni moom la sëñ bi yónni woon jox kër gi sëñ Mahfouz mi dem na leeral man nag sëñ Xalilum sëñ Fall moo ci dugal di xaritu ki moom kër gi ni ma jàppale ma ci ba ma seetee mu leer moo tax ma taxaw ci taxawaay bi waaye man sama yoon ñëw ci waaye nag gannaaw fan toj kër gi dañ ko ñemee toj audi dañuy wàcc nañ nañ buñ tojee ma andi nit ñu ko toj moom toj ah, nañ ko isin nañ ko isin ah dañ ko bëgg wàcc wàcc audi toj tey bisimilah nañ isin ba escadron yëpp ñëw ñu isin toj ba xam lii dama bett ma neexoon andi fi ay mbooloo te musiba la yem te du ma ko def dama am kilifa sëñ Muntaxa woo naa mu sañ léegi ma nga jëm njëriñ ci sëñ Muntaxa wax na ko bu ko defee ni ko ko ñuy wax Ali Siré Ndiaye la Ali Siré moo joxe ndigal te wër ta jëlagu sëñ bi joxe ndigal ci dëkk bi di toj la ki joxe ndigal amul dëgg ñi ñëw di toj am ñëwuñ ci dëgg waaw mu jeex